beneen beneen ay ay naar tënk maa ngi tudd Basirou Samb man si dëkk bi laa juddoo yaroo si dëkk bi màggee si dëkk bi sama papa sama yaay yaroo si dëkk bi juddoo si dëkk bi màggee si dëkk bi quatre mille conseil fi am duma fi gan paasuma ñëw fii laa juddoo ah. su may wax damay wax parce que dama maîtriser li may wax xam li may wax Sonko bi ñuy kaas xaaral Sonko bi ñuy kaas suñu terrain ñëwul soutenir ñu te ñu daje ay table Sonko ñëw si marché bi nee na day day ñëw pour xool visiter lan la fiy def nañu